lu ñu wane euh, am na benn percée bu euh, yeewi askan wi def percée boo xamante ne peut-être ñu bëri teg nañ ci seen bët te kenn mënul euh, wax ne que ça ne s'est pas fan nga mën percé qu'est-ce qui s'est passé dans la région de Dakar. Dakar dinañ ko ñu ko booboon ñu ko téyewaat. mais mais mais mais gis nga écart. bu gañe Dakar ak Sonko. loolu booy nee si. non loolu grave loolu propos de campagne mais dama ne la. ah ok non non campagne da ngay yaakaar ngay wax. waaw propos de campagne ni. Mm-hmm. ba dama yaakaaroon ni benn mooy gañe. Euh, campagne je l'ai dit pendant la campagne. mais par contre la question posée c'est pas ça. donc bu ma divertir yéen ñaa bu leen ma divertir. perte bi ngay wax laa gisul ndax bu fekkee ne Dakar boroomam moo ko téyewaat muy Khalifa Sall. perte ay communes yoo xam ne perte kon dafa dellu ginnaaw d'ailleurs fu ñuy wax perte alors que yàlla recul de Yewwi de de Taxawu Dakar qui est avec Pastef et yokk na boppam mais terewul mu perdre Grand Dakar perdre Plateau tu me diras que ñooñu ancien maire Khalifa la ñu woon démissionné fa ñëw ci Benno ko Yaakaar waaye ba léegi ci ba ci sur la bannière de Benno Bokk Yaakaar ak Cambérène ak gore ci la ñu dem ren. oui ak biscuiterie biscuiterie yéen. non non biscuiterie c'est le PDS. c'est Djibril Wade. ah jaaxle woon. Mhm. dama ni ak kon Khalifa. mais Gorée n'a jamais été gagné par euh, l'opposition Augustin l'a toujours gagné. léegi tey dana ci ay yeneen bañ a la demee pas ci benn. mooy su ko def wax moo ci beneen bañaar am na ndax benn benn Diouf Sarr ay Yoff moo second l'honneur de Benno en 2014 donc perte boo xam ni. waaw yow da ay communes yoo xam yaa gagné woon en 2014 kon nen ne bu dee jàng nañu école def seen bàyyi dugaloon jàng école. mais Wakam Samba Bathily à Wakam. mais mais mais Wakam kenn koo gagné kenn benn benn indépendant. Aziz Gueye ñi amoon moomoon moomoon lépp sauf benn dem perte man six communes. ay wakkaan. mais mais mais met met naka ngay analyser. naka ngay yow nga moomoon. xoolal Khalifa Sall nekkoon fi maire. ba muy dem ndax dañ ko raje mu ne soit wax dina remplacer ma ba bi élection yi jotee ñoom ñoo fi nekk ñu bëgg ko fokk di seen loxo ñu téyewaat ko waaye ñun ñun nangu nañ Grand Dakar foqati plateau foqati Cambérène foqati conservé Gorée si ci ba ñii wàllu foqati biscuiterie yi. ña euh, nekk wakaam fokk ci gëm sa bopp waaw gëm sa bopp. Medina Medina Medina ñoo ko moomoon taxawu. donc yeewi mais nitu mais nitu Bamba Fall fokkati ko affaire kii. nitu Khalifa kii yeewi non mais yeewi léegi Bamba Fall nekkatul yeewi. non gëm sa bopp. bannière ma demee bannière bi dem. gëm sa bopp kon Bouga mën nañu mhm. mhm. ko jëlee yow. mais non maître attends. maître maître maître yow la nga yoroo ñu fokkati ko ci yow li ci bëri. nga ne perte nga def. da léegi mais mais maître Yewwi a gagné Guédiawaye. maître. qui est quand même un euh, qui était boo xam ni. Euh, oui mais ce que je veux. taxawu Dakar du taxawu Guédiawaye dama pare gu ma li may wax dama posé question ne ma la percée à Dakar. mais maître maître. bu ñu paree ñëw ci Guédiawaye. maître percée à Dakar moom. maître nee le recul. non mënul mënul am mënul am recul mais déjà mais déjà ville ville de Dakar sooy xool déjà différence bi entre euh, li yeewu askan wi am ak li ñeneen ñi am non seulement ça mais maître naka ngay analyser tey Ziguinchor entre autres endroits yoo xamante ne tey yeewi euh, euh, gagné na ko. ñu ngi wax waxu géej waaye tout à l'heure léegi rek nañ dem léegi rek tey mu neex tey mu neex et puis ma sœur Nafi dama la bëgg mm-hmm. ndax sa objectivité. Mm-hmm. di nga ñëwee da nga ñëw ma maa la daan wóorul. yow chiffres yi bu dee chiffre la ñoo leen mën bu dee collectivité locale yi ñu jël lépp ñoo ko rafle presque. bu dee bu dee loolu mooy percé de xam nga carte baa ngi ne ma génne na les cartes marron bi senegal ni la marron yee. waaw mais Kaolack gañewu leen ko te da ngeen ko maroo xam nga xam nga Bousso gañewu ko. kii ah. yooyu ñu la àndal. ah Serigne Boubou. mais Serigne Boubou a soutenu que àndul ak euh, benn bopp yéen a Serigne Boubou mu génn. si président moom recevoir. ni ma bul présenté wu ma bañ. xam nga wala am dama retiré ta candidature ak Kaolack. c'est la présidente ne ma retiré ta candidature wala mu def pas effort. mais donc il est très proche mais léegi disons que kenn gañewu ko ci opposition ak pouvoir xam nga loolu moo gën a honnête mais Yewwi li mu gagné Yewwi Collège zéro on ne parle pas de on parle de Rahma Ndiaye et Serigne Mboup yooyu absent. mu fa dee am na liste de. mais El Hadj il faut donner des chiffres à l'appui de ce que tu es en train de dire. maa ngi ñëw donne des chiffres à l'appui. ma ñëw ma ñëw dama ni chiffres laa joxe nii. waaw. léegi bu ma ñëwee. kenn umpalewul nii on a perdu Guédiawaye. Mhm. Yewwi moo gagné. on a perdu Dakar sept députés. Guédiawaye deux députés neuf députés. Ah. a a il est en de parler de littoral ça fait 41 députés de perdu dans les départements. maa ngi ñëw de perdu dans les départements. littoral c'est ça. ce qui est considérable. c'est 41 députés dans les départements. ma ñëw ma ñëw. waaw. alors c'est 41 oui oui. c'est 41 waaw waaw vas-y maître. on est non on n'est pas dans on n'est pas dans les législatives. non local yi. on a euh, local yi lay analyser local yi la def. dama ni dama

dégg nga léegi nga ñëw man je parle des départements de après les grandes les communes léegi nag on a gagné le département. non jarul lim. xam nga il non il faut donner les chiffres non nee na. mètre mètre lim kii nan joxe ay chiffres. mètre mètre ko lim. non joxe ay chiffres. mais mètre mètre oui il faut donner des chiffres. kenn mënu ma ko tëree lim. non non il faut donner des chiffres. damay dégg chiffres yi te kenn mënu ma ko tëree lim. tey lu ma tere lii boo gisee ma ñëw fi tey li ma fi tax a ñëw sinon du ma ñëw. non non mënoo non li may lim. jarul ko dinaa lim de. dinaa lim moi je préfère tey nga ne Benno tant de commune la am. dinaa lim de. valeur absolue lii la électoralement parlant lii la c'est comme ça qu'on analyse mais li ngay def li ngay def vraiment ça c'est un récit d'élève ça c'est un récit d'élève ñëpp daan la débâcle de Benno je vais voir ndax jàng nañ français ba ma déggee école lan mooy débâcle nañ dem ñu gagné Pikine gagné Mbour. ah, ah Pikine Tivaouane. mais Nene Pikine Pikine Nene il faut arrêter il faut il faut arrêter ça. provisoire. mais provisoire ba la jox Dakar Barthélémy ko gagné. waaw mais dëgg-dëgg nangu leen nangu nangu leen nangu. waaw nangul na Aliou Aliou Sall bu nangoo chiffre yi génn euh, au niveau de la commission départementale da ngay ñëwee d'accord mais maître. mais ñu ngi may lim de kenn du ma ma lim. maître ma ni may ma lim. waaw maître léegi damay compter mais mën nañ ko résumer quand même. du ma ko résumer dafa gaaw may ma rek bu ngeen ma dugg. waaw nañ ma ko bàyyi ko mu parce que oh. ngeen baal ma mais dafa bëri ay déformation ay manipulation daanaka ba par exemple wër naa maa gagné laa doon nangu un ba ko ne donc Pikine Mbour Tivaouane Thiès département yi def de. Thiès département engrais bi commune yëpp de la du département. ñu ñoo gagné Pikine gagné Mbour gagné Tivaouane gagné département de Thiès. maître gagné Louga. mais maître gagné Linguère. pardon gagné Kébémer gagné Saint-Louis gagné Dagana. Kébémer gagné Podor département de Kébémer. Ah, département de mais mais mais xam nga. Darou Mouhty ak la ville de Kébémer. 38 mais mais mais nañ ko d'accord. danaa ko lire allez-y maître. maître allez-y allez mais mais juste signaler que quand Théodore Montey mu ngi mu ngi mu ngi wax ne que na Benno Bokk Yaakaar Dakar di arrêté di lim. comme peut être ni ko defee tey ci comme tey ni ko defee ci. mais nee na nañu di lim. victoire buntu bi ci Benno Bokk Yaakaar. il l'a dit et il l'a fait. de la majorité présidentielle non il est certes de la majorité. il a gagné son département man département lay lim nan la tey génn a gagné le de Ranérou. il a gagné Ranérou. may a d'accord mais Théodore Monteil il a battu en plat toute une gendarmerie 38 départements. est-ce qu'ils ont. li ma bëgg a lim xam nga aussi lu mu gën a bon mooy. gis nga li nga wax nii da nga ca maîtriser wul dara. bu ngeen bàyyi da nga ca maîtriser wul dara. li ngay tudd parce que da nga maîtriser wul dara. On a gagné on a gagné Pikine. on a gagné Mbour on a gagné Tivaouane on a gagné Thiès département département bu commune de. mais on a gagné. Thiès rajo dafa bëgg a saboter émission bi. on a gagné Bambey. Cheikh Aïda Mbodj. on département de Bambey. léegi pour dire quoi on a gagné de Louga. mais pour dire quoi. donc kon pare mmh. on a gagné département de Kébémer. le département de Linguère. département de Saint-Louis. de Dagana. de Podor. de Matam. de Kanel. de Ranérou. de Fatick. de Foundiougne. de Gossas. de Kaffrine. de Birkelane Ranérou génn ko ci boolewu leen ko Ranérou ganewu leen ko Ranérou ganewu leen ko de Nioro ah. de Kaolack de Kédougou de de ah, Saraya de Kolda de Médina Yoro de Vélingara de Bounkiling ay pare de Goudomp de Sédhiou de Bakel de de Koubantoum et d'accord dama sur sur 46 départements on a perdu que donc li ma wax leer na. léegi yan on a mis wàllu bleu. Mhm. on a mis le bleu. Mhm. xam nga kon dafa triché wu. Mhm. le vert on a mis si a Kër Massar. à Rufisque à Guédiawaye et à Dakar. on a mis si à à Oussouye. à Ziguinchor. mais mais mais boo ah. jëlee ñi li ñu am. à peu près sept département lañ ñàkk. ñu dañu ne ba trente trente neuf département. ti boo seetee population yi moom joxe na chiffre yi rek kontaan naa. du ma yeewi du ma gëm sa bopp du ma ñeneen ñi nag ay 2035 ak guddi bi yëpp mel na ko yaakaar rek. déedéet déedéet il l'ont dit clairement mais ak sa goxu nag bu adama yooyu yëpp xam ne ni ay démembrement bennoo rek. mais mais li wut woon mooy yeewi moom mi ko teg ko mooy grand vainqueur moo am dépassé yeewi dañ koo ñaf a ñaf. alors ci 39 département yow yaa ngi ne Diourbel. d'accord oui gërëm sa bopp xëy na amul benn département je crois mais am na woon. bi dina fàttali ko lim. ci ci ci ci ci Dakar. Rufisque Dakar bi yee dellu ginnaaw lool. Rufisque ndax gagné woon tout toutes les communes ba mu des benn Yoff ba jur saa jot na ko ba nga fa na ko na ko ci yow. te Ousseynou mi moo defee candidat euh, bi kii kii maintenant Ousseynou booy Pastef. ah Cydizane. waaw. ñu ne ñu ñu dem jëlee jëlee euh, wakaam benn indépendant duma leen. fuy fuy. lii vraiment suñu gisee. vraiment Grand Dakar. maa ngi ñëwaat ci yow. duma leen bi ma faal duma leen moom Jean Baptiste Diouf. ñu dem campagne ñu dugal leen waaw ban pexe fa am foofu waaye. bàyyi leen di nax Sénégalais yi. oui Benno dafa gagné élection yi. su ñu gisee euh, su ñu gisee taxawaayu Benno. dafa xalamu. d' accord mais mais mais ma ma ma ma wax ak kuy. kon amul pexe su ñu gisee su ñu gisee. Euh, su ñu gisee li li li li li Yewwi def sur toute l' étendue du territoire. Euh, sur toute l' étendue du territoire su ñu gisee également Benno Bokk Yaakaar peut-être. ku ñëw ci benn bokk ak ñoom en tout cas euh, da ngay euh, wane sa victoire bi nga am est-ce que euh, victoire boobu ñu def est-ce que ñu ngi décrypter le message que le peuple sénégalais a voulu. mooy ñu bu mu leen bëgg lancer. d'abord nee man li may njëkk wax rek mooy émouement de marché yi bi mu amee. Mm-hmm. Ousmane ko def na conférence de presse wax ne xam naa ne mbooloo bi génn génnewuma leen. am na ñu ci dugg ñoo xam ne dañuy jóg pour xeexal seen bopp doon wut pouvoir ci li leen naqari pañe ménagère bi dafa cher ceeb yokk diwlin yokk suukar doo ko gis courant yokk ndox doo gis ndox bu baax ñoom maasi si dugg ci topp ci Ousmane Sonko ko wax ñu teg ci ay fan président Macky Sall toog na j'ai décortiqué les message de la jeunesse en particulier chômage mu def benn conseil présidentiel sur le chômage. Mm -hmm. sur l'emploi mm -hmm. parce qu'il avait dit qu'il avait décortiqué mais man je dis que. le président a décortiqué les messages mais il n'avait pas compris le message. parce que li may jàppe ne il n'a pas compris le message mooy. Mhm. ceeb ak diwlin bi taxoon yenn nit ñi génn fekk ci émeute yi mhm. ba mu ne il a décortiqué le message ci diggante mois de mars ak mois bi ba fi ñu toll nii. ceeb waroon na wàññeeku diwlin waroon na wàññeeku suukar waroon na wàññeeku emploi des jeunes waroon na yokku chômage bi wàññeeku président foofu la mënoon comprendre le message mais après loolu au fur et à ñuy dem léegi dañuy gën a sombre wu ci dund bu cher góorgóorlu bi di sonn ambulant bi di sonn ci liggéey di feeku salaire salaire mu doytu ko xar matt mën a jafe ñu jël projet yu baax yépp jox ko entreprise étrangères yi entreprise locale yi di souffrir ñooñu téye seen carte ne comme que génn nañ ànd ak masse bi foule bi xeex nañ comprendrewul bu ñu yegsee ba élection locale yi on va lui faire perdre les élections locales. Mhm. pour résumer et dire que les citoyens sénégalais lambda ont sanctionné le président Macky Sall. benn sanctionné par tous les ministres par tous les DG mais am na ay DG ne ils sont arrogants des ministres yoo xam ne comportement bu ak ñi ànd ak Macky Sall pas le monde nag ñu baal ñu boole maire boobu yëpp dajale ko. élection locale yi jot ils ont tout fait pour aller voter mm-hmm. man je vais pas dire que c'est des militants de Pastef ni des militants de Yewwi ni des militants de nangam ak nangam citoyen sénégalais bi voté moo ëpp militants yi ne ci parti politique yi di voté mm-hmm. te faruñu ci benn parti politique citoyen sénégalais yi ñoo génn huit heures mm-hmm. paa yeeg maire yi balaa dix heures onze heures voté nañ quinze heures seize heures jeunes yi génn mais loolu ñëpp les électeurs ne sont pas des militants Ça, ñëpp xam nga en science politique. Je dit, c'est ça que j'ai dit. C'est en que j'ai dit. Je le militant, euh, il est actif dans le, les partis. L'électeur, c'est un S'il vous plaît. Qui de science de Covid Non, s'il vous plaît, s'il vous plaît. waxuma cadre science politique. gis nga Sénégal Sénégal bokk na bokk na ci li ñu sonal. ne ne bokk na ci li mi li tax réew mi di peine à développer. li ñuy jàng école di ñu ko andil science politique di ñu wax ay Machiavel. ay Lénine exemple exemple bi ma xam naa ne sëñ Tuubaa nee na sëriñ Tuubaa nee na sàkku xam-xam sëriñ Tuubaa nee na sàkku xam-xam jar naa sol ay dàllu weñ di dox ba Chine pour sàkki ko. Ah, loolu moom xam naa ne xam-xam a jiitu lépp mais dama ne mais dama ne askan wi ñuy dund ay sénégalais lañ donc am na foo xam ne askan wi. bu ñu fa tollee du ay science politique moom la ñuy yaakaar pour développer ndax ambulant ak banda banda bi yeew 6 heures du matin dem marché di jaay jënam kooku soxla science politique électeur ak militant loolu électeur ak militant ma ñëw mais dégguma la pauvreté bi ak militant politique ça c'est hors sujet aussi mais bàyyi ko mu yeggali parce que nii day tax temps bi di gën a gudd relance bi di gën a gudd mais s'il vous plaît dama doon appuyer ne la électeur du mas a yem ak ak militant. waaw d' accord les cartes de membre. waaw je suis d' accord les électeurs sont plus nombreux. donc c' beaucoup kontaan naa non non non merci beaucoup waaw jërëjëf ci xam-xam bi donc c' est pour dire que c' est pour dire que tey sénégalais boobu nga xam ne moo gën di ñoom ñoo toog dem gis ne war nañu mën a sanctionné ñu sanctionné et. je crois que tey le pouvoir. donc tu as vu par là euh, benn vote sanction. vote sanction moo am à 100 pour cent mu des beneen vote sanction. Mm-hmm. benn mu des beneen beneen vote mu des beneen vote sanction. mooy Benno Bokk Yaakaar ak APR ñoo voté contre Benno Bokk Yaakaar ak APR. Mm. mooy les listes parallèles. ndax ci avant les listes parallèles. ci élection ci élection yi. la convergence des jeunesses républicaines moom la ñuy wax COJER muy partie intégrante ci biir alliance pour la république. Mm-hmm. les jeunes de la COJER de Dakar def nañ ay conférence de presse. di lancer message ne bu kenn votal Abdoulaye Diouf Sarr ak benn bokk yaakaar ci Dakar du benn conférence de presse du ñaar du ñett. ku dugg tapé. ci kii di nga je parle pas de Mame je parle de la COJER Mame Mbaye sa Sénégal 2035 ces jeunes qui ont ba def conférence de presse Abdoulaye Diouf sax dafa defar liste département wu Dakar gisuñu ci seen bopp je prends en l'occurrence Samba Ndong bi euh, s'il vous plaît non je parle dañoo dem jàkkaarloo di jàppante entre ñoom ak waa Kapatine Diaz waaw non je parle je de. mais dak ñu seen bopp si sama jóg. d'accord waaw waaw parce que loolu fépp la am demal. je parle de Benno. conséquence yi ngeen yàpp seen demal ci ñeneen ñi. mais mais maître sax mënul demee. boo ko defee koy wan ne ko li muy wax c'est valable pour tout le monde. nene y a des frustrations partout mais dama koy may rek xam-xam. nene frustration partout. amul problème damay may xam dinaa ko jël heure bu ma jëlee su ma dogee ma déglu ko jox ma jox ma xam-xam ma jël. d'accord man je suis pas pressé. non non je vais je vais terminer. donc. tey jeune benn bokk yaakaar yi ak cadre ak sage benno yi nga xam ne ils sont frustrés am lu leen met seen diggante ak président Macky Sall ñu dencoon def ko benn arme c' était pour montrer au président que tey ils doivent avoir pour exister bu ñëwee ci défaite bi nga xamante ne tey ji moom laa jàpp ne la mhm. ci benn bokk yaakaar effectivement j' entends la communication de benno ñuy wax naan ils n'ont jamais gagné les grandes villes yi nga xam ne perte nañ ko yan grandes euh, tey dama jàpp ne loolu du discours xam nga lu tax boo demee pour élection bu jotee nga da ngay dem conquérir ab commune ab département da nga dépenser xaalis teg ay organigramme teg li war pour nga mën a gañe ils sont partis au combat mais dañ leen a gagné ci combat bi ci grande ville yi muy Dakar. yan grande ville. non Dakar c' une grande ville c' la capitale du Sénégal. yéen ah. est une grande ville. grande la capitale de Dakar, qui absorbe plus de deux, millions d'électeurs. Euh, ñaareel ba mooy ñaareel non da nga non c'est bon ah. mais oui d'accord. li ah. je suis d'accord mën mais oui c'est ce que c'est ce oui mais on s'écoute c'est ce qu'on est en train se connaît en train de di nga am temps. mais chroniqueur bu fekkee wax nga lu amul la pare. un chroniqueur qui qui gub ci dinaa ñëw fi mu yaakaar la def nànk rek. non eh Omar. non je venir. après non venir. xam nga lan la. Ah. chroniqueur pas entre man ak moom koy déglu. saa yu ma doon dama koy déglu du doon man ak moom. parce que man sénégalais wax donc tey tey dama jàpp ne benn bokk yaakaar ak li ñu munti perte même bu dee benn commune la war nañu toogaat xoolaat lan moo tax ñu perte commune boobu et le pourquoi ak naka la ñu mën a defarwaatee pour conquérir ko parce que merci donc loolu autocritique lay doon boo xam ne sera positif pour ñoom léegi nag ma daaneel fu ndaw mhm. et la benn aussi a raison de dire que ils ont la majorité mhm. parce que sur 557 communes mhm. Benno a plus de presque 500 presque 500 communes tey boo jëlee électorat wu 46 département yi nga xam ne Benno Bokk Yaakaar moom la gagné mun nga ko génnee ci 4 mun nga ko génnee ci 80 pour cent électorat wu Sénégal ah soo dajalee ñoom dañu am lépp sur le territoire sur l'étendue du territoire national. mais bu ñu waxee dëgg nag. su ñu xoolee carte Sénégal bi nga xam ne moo fi ni ñu xool cartographie politique bi dans le monde rural dans les autres villes aussi dans les autres communes sorti majoritaire parce que boo jëlee 488 et quelques. alors xaaral ma ñëw appuie sa public avec des chiffres. ay chiffres yaa ngi ma naan ma naan des chiffres. sëñ Sadio xaaral ma may ma may ma mais maître man maay wax man maay wax. man man seen i chiffres. waaw may ma sëñ Sadio. Serigne Saliou. mais foofu la ah, des chiffres yi la Serigne Saliou. Serigne Saliou may ma la may wax la dama ne. chiffre ak ñàkk chiffre ci yem. déedéet non dama ne nga déglu ma. waaw may ma. non je peux mais c'est moi qui parle. non non tey boo jëlee tey communes yi nga xamante ne ak département yi nga xam ne Sénégal euh, Bokk Yaakaar gagné na ko. soo defee calcul bi. Mhm. dañ ne un million trois cent et quelques mille près de un million quatre cent près de un million quatre cent mille voix. rek près de un million quatre cent mille voix exemple. moom la Benno am. Mhm. ñu ne la. yéen mi ngi am 700 et quelques mille voix. on a le double. mais si vous divisez 1 million 400 mille. fois 2 ñaata la lay jox. vous voulez des chiffres. non soxna si même rek jarul génne sori foofu. moo tax élection yi di ñëw législative. yoo xam ne. xam nga dama leen a baal ngeen wax sànq ba léegi sama micro baaxul ma am patience dal donc s'il vous plaît aussi avec un peu de kii tamit respect ngeen may ma ko. je vous ai laissé parler sur le sport sur le football généré di et j'étais patient donc may leen ma ma joxe sama xalaat. Mm-hmm. voilà. non man man appui ce que dama ne fi ma ko appuyé xam nga fan xam nga fan laa koy appuyé. mais est-ce que tout ça c'est 80% de l'élection. non dama ne dama ne dama ne. fii lu ñu fàtte nañ ko dindi après. waaye dama ne waaye soxul bind man may wax en direct sénégalais yi laay waxat bindal fii ko suba dama ne. Mhm. boo jëlee l'étendue du territoire Sénégal nga jël électorat beeg vote bi li fi ne. 557 communes moo am dak Sénégal 46 départements moo fi am. boo génnee presque de trente cinq commune moom ngay jël wala quarante commune bu baree ba bari nga séddale ko gëm sa bopp. séddale ko defar sa gox séddale ko yeewi askan wi séddale ko wàllu et cetera mënuñoo génn cinquante communes sur cinq cent cinquante sept communes bu baree ba bari nga jox leen cinquante sept cinq cent cinquante sept communes dama lay wax lu leer xam nga li ma lay wax bu baax ma li xam naa ko bu baax tey loolu soo ko ko ci en terme d'électorat un million quatre cent mille voix boo ko jëlee bu ko yemal ak sept cent mille la majorité dépasse largement pour la benn bokk yaakaar maintenant nag maintenant nag maintenant nag les conséquences xam nga mooy lan si ñaari cas yëpp les conséquences xam nga mooy lan tey boo jëlee voix yi nga xam ne sept cent et mille voix moom la yeewu askan wi am da nga koy diviser entre Khalifa Sall yeewu askan wi c'est près de vingt trois leaders ak Ousmane Sonko muy vingt quatre leaders ah c'est vingt quatre leaders nga génne ci voix Moustapha Sy Serigne Moustapha Sy génne ci voix Serigne Moustapha Sy Jamil génne ci voix Khalifa boo ko diviser par cinq Fall may ma boo ko diviser vingt quatre responsables. d'accord c'est un apériciste. non non c'est pourquoi tout à l'heure lorsque j'ai dénigré le pouvoir de la partie c'est un yéwiste. non non non non may ma rek may ma en commençant mes propos et le Benno Bokk Yaakaar. da ngaa kontaanee teg. non non non non non. ne teg. non lépp lépp attaqué ma ci nga kontaan. ma dugg ci opposition ne je suis un apériciste. vous nga ne moom solo honnêteté intellectuelle. c'est la ça se fait Yewwi. non mais maître may ma. avocat avocat bi génne si vous réagissez de cette manière may jàpp là vous avez une honnêteté intellectuelle et un peu de respect aussi par minimum. quand même dama juger inutilement hein. en tant que citoyen sénégalais en tant que chroniqueur de yow yaa mel me connaissez pas en tant c'est une diffamation. un peu d'honnêteté intellectuelle devant le tribunal pour diffamation. non non non non si tu que doo ko tuumalee. pas en arriver là s'il vous plaît. s'il s'il vous plaît. j'indexe le pouvoir à la benn. léegi nag nañu déglu j'indexe je touche un point. oui c'est bon c'est bon man boo ko yóbbu tribunal maa ngi defaan ndax dafa diffamé. il vous a diffamé. que dire des propos du président de la République. de la diffamation qui a la victoire ak ni ko waxee une victoire nette et écrasante. absolument de Benno Bokk Yaakaar. mais mais nee lui c'est lui le chef de de, de la troupe. lu ne Fall kenn du ko jeex d'accord lan nga ciy analyser quoi comment l'analyser ak ah, comment démontrer 39 départements lui c'est le chef de la troupe. Mhm. moom moo jël nommé ay généraux ay soldats teg leen fu il gagne partout. yaa ngi dégg. Mhm. maintenant s'il y a échec. Mhm. mais lui il ne va pas reconnaître ses échecs. waaw mais El Hadj nag vraiment man bëggee wax. kenn échec bëggee wax j'ai tant souffert mais. non kenn échec il faut nga tey parce que El Hadj aussi. la déglu may may moom dina la dina la déglu dina la déglu. je vais je vais le démontrer. montre le démontrer. allons-y dama lay wax rek. foo ma bëgg ci gis nga débat bi. gis nga débat bi gis nga débat bala muy neex. mooy mhm. wax da ngaa jóoru ci appuyer dara. non sëñ Saliou ma wax ma da ah, nga ne nga mais toog na puy tamit. xam nga déjà a dit le tableau les gens disent que Benno se retrouve avec 438 communes. oui. les Yewwi Après, il y a eu, je crois, Wallou. 39 départements. Même Non, moi, je parle des collectivités. Ça. Wallou, eh. Non, j'ai dit, dans la totalité la Loire. Wow, je parle dans la totalité. Donc, ah, Wallou se retrouve avec, avec 23. Légué, le problème qui se pose, c'est quoi C'est que. C'est que 29, ok. Le, le, le, en, en 2009. En 2009. qu'est-ce que Iba Der Thiam feu Iba Der Thiam disait lan la sur la victoire du Sopi. dañoo ma rek mais ma rek. sur la victoire du Sopi à si on va comparer. j'ai aujourd'hui xam la mauvaise foi la mauvaise foi nee mënul weesu les résultats que Benno a engrangé parce que ñoom ils se disent que dans la totalité c' est 1 million 376 874. Mhm. soo ko jëlee par rapport au vote des électeurs. c' est 41 virgule 80 95 pour cent. ça c' est ça c' est ça le, le pourcentage nga jël ce que Yewwi a eu. Mhm. Yewwi avec ses 784 773. 23 virgule 91 pour cent. le Wallu 442 661 c' est 13 virgule 49 pour cent nga jël ce que Bunt bi a eu 57 ça donne 3,88 ce que l'on a dit de Gëm sa bopp 97 800 non 982 c'est 2,99 voilà les statistiques maintenant le problème ici xam nga c'est pas la majorité au niveau des communes problème bi du foofu hmm. parce que ce qui a trompé Iba Der Thiam en 2009 loolu mooy dellusiwaat parce que ñoom bañ ko calculer par la suite na fi vous vous êtes retrouvé électoralement parlant da nga gis ne score bi c' pour cent. waaw xam nga waaw. moom la moom la moom la c'est-à-dire en majeur en valeur en valeur relative. en valeur relative cest dire tu frises pratiquement tu peux même friser les presque les 100 pour cent mais boo xoolee tey boo koy jëlee compte tenu des suffrages da ngay gis ne dafay wàññi. parce que les collectivités n'ont pas le même poids électoral il ne faut pas vous faire berner par des chiffres le problème c'est-à-dire ah. mais vous me demandez des chiffres yow yaa ngi may laaj léegi mais yaa ngi contredire sa bopp yaa ngi may laaj léegi ay chiffres mais dégg leen ci li may wax non dégg leen dégg leen sali vous ma bëgg dire que li ma wax naa joxe ay chiffres yow nga ne ñu fa bàkk mais puy puy nag xam nga dama bala muy neex xam nga bi ngeen di wax non xam li may wax ah. li may wax nee ne man dama ne ne Sidi Bodé jàppale PDS la te ma chiffre sax la na jox ay chiffres yow nga ñëwaat léegi ne il faut pas waaw léegi d'accord d'accord on écoute on écoute on écoute terminer ñu ñu man je parle français dama bëgg ngeen déglu bu dama ne dama ne dama ne d'accord mais dama ne APCA dama ne APCO APCA dama ne fi nga wax keroog dama ne yow da nga dégg français dama ne empêché ngay wax berné par les chiffres li ma wax c'est clair c'est-à-dire dama ne que les chiffres là ne vous trompent pas boo déggee ma la ne que les chiffres là ne vous trompent pas mooy vous dites que par exemple on a engrangé tant de communes léegi sur la base de ça nga bëgg wax ne voilà que maintenant le Benno est majoritaire dans le pays mm. et puis le problème qui se pose aujourd'hui c'est quoi c'est quoi voilà des gens qui dans leur besace électorale mm. ils prennent le ànd nawle ànd liggéey de Serigne Mboup tout ce qu'il a eu il met ça dans la besace tout simplement de Benno Bokk Yaakaar même CPJE boobu ngeen di wax. ak buntu bi a eu le démenti de c'est pas vrai. te Montaigne est un élément en dama ne la c'est pas vrai parce que. aujourd'hui Montaigne est un élément. un membre de Benno voilà comme man. non Montaigne il est de Benno comme man non non non non xamul tax ma la ko. Eh, Diop si Diop si est de Benno comme Montaigne. aujourd'hui aujourd'hui mais moom du. aujourd'hui là là. barke alxuraan Montaigne ak ak Diop si ils sont de Benno. aujourd'hui j'ai eu Montaigne au téléphone mais kii jamais day jéem a ndax dégg j'ai eu Montaigne au téléphone on a discuté sur les résultats de Buntu bi. oui et et Montaigne il s'indigne des gens qui prennent aujourd'hui tout ce qu'il a fait comme travail.

sa buntu bi Ranérou peut-être la ville mais le département de Ranérou eh, eh. c'est Benno Bokk Yaakaar foofu amul ville amul foofu amul ville Ranérou amul ville yow tamit Ranérou amul ville yow xamal li ngay wax déedéet <laughs> donc la ville waaw moom laa non non non dama la département mais waaw man nee na je donne les statistiques nee na Ranérou c'est gagné par par bunt bi Oudalaye c'est gagné par par par bunt bi euh, euh, Vélingara Ferlo c'est gagné encore par bunt bi et voilà Théodore Monteil moom la la commune yooyu yëpp non dama la ils ont gagné les trois communes et le département loolu laa la bëgg a wax léegi ah, d' accord alors non non j'ai eh, pas fini. donne-nous les chiffres. d' accord termine alors termine alors donne-nous les chiffres. non dama ne. donne-nous les chiffres ba ngeen di chiffres ngeen donne-nous les chiffres. dama ne li ma wax c'est archi clair man li ma wax. Ranérou sort les chiffres. waxuñu dëgg. Ranérou Ranérou. c'est pas vrai. tout relais ru arrêté maintenant le problème xam nga c'est quoi. le problème c'est quoi. waaw maître s'il te plaît. la mauvaise foi des gens comme El Hadj Diouf aussi El Hadj Diouf il faut le comprendre xam nga ton problème xam nga toi c'est quoi yow d'abord benn El Hadj Diouf yow. tu es un homme politique boo xamante ni un politicien d' abord boo xamante ni yow El Hadj Diouf tu n'es investi nulle part El Hadj yow koo faral ñu gagné ko. El Hadj ah, Diouf ah, yow dama ne. benn la faral dama gagné non dama ne El Hadj Diouf. ku personnel aussi. benn la faral Macky Sall 2019. Macky Sall gagné premier tour. non ci débat personnel. Macky Sall 2019 premier sa xabar xabar jéem. benn 2022. dama ne waaw d'accord yow nga faral yambar yi ak tokaar yi nga ñu ne. dama ne. présidentiel mu duma la. sëñ Saliou daane la local mu duma waat la. non yow fekkoo yow nekkoo fenn parce que amoo parti. yow yow duma nañ la pas de parti. benn ah, non non non tu n'as pas de parti. yow ñoogaat fenn amoo fenn. yow ñoogaat fenn mais au moins homme politique yi nga xamante ne ñoom am nañ. non dafa ndànk rek El Hadj Diouf tu peux pas me divertir. c'est ça on n'écoute que toi. non mais il faut aussi que non il faut que je taise. yow da nga mën a manipuler opinion. je ne peux pas parler. tu dis jamais la vérité. il faut contrôler le débat il faut que sëñ Saliou yaa Sonko mën ngeen a far ah, d'accord mais El Hadj Diouf gis ngeen nit wax dëgg dafa baax El Hadj Diouf apprend à dire la vérité jamais la vérité ah, xam la raconter des histoires aux gens El Hadj Diouf su la neexee nga incapable de dire la vérité caresser Macky Sall parce que ça se comprend on va vers des on va vers un gouvernement ça c'est des appels de pied bu yeboo ñu def premier ministre bu yeboo tu ne seras plus premier ministre tey nga dee de waaw oh, oh, oh. mais dama defee premier ministre tey nga dee de dama ni dama ni c'est moi qui ai la parole c'est moi qui ai la parole d'accord ministre des marigots ministre des marigots et des flaques d'eau ministre des marigots et des flaques d'eau waaw ministre des marigots et des flaques d'eau waaw ministre xaaral pour pour s'il vous plaît. pour maître maître pendant la saison sèche. maître seen micro yi seen micro yéen ñëpp dafa maître. Maître, euh, maître, ce micro on ne t'entend pas parler, on ne t'entend pas parler. Non, maître, c'est... Sëñ Saliou xaaral xaaral Sëñ Saliou. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, mënuñu nekk ci débat, mënuñu nekk ci débat. Écoutez, maître, mais mais maître ah, di nga ma bàyyi ma wax di ma bay ma wax. Non non, maître. s'il vous plaît euh, je m'adresse à vous yéen ñi nekk ci plateau bi mënuñu nekk ci plateau bi mënuñu nekk ci plateau bi di waxtaan ak sénégalais te du ngeen dégloonte non non on, ça ne marchera pas comme ça maître il faut il faudrait que <coughs> mais yéen yéen ñëpp seen micro yi dafa tëju. Cheikh sa micro dafa tëju sa micro dafa tëju. yéen ñëpp seen micro dafa tëju. maître. t'es nul. non maître maître. mais kii du nit. oui mais maître il faut que il non maître xaaral rek xaaral waa xaaral maître dañoo nekk sur un débat organisé maître s'il te plaît on s'écoute waaw d'accord mais da ngay ba nga jëlaat sa parole nga éclaircir li nga war éclaircir mais non nañu dégloonte s'il vous plaît parce que peuple bi ñi toog seen kër di ñu seetaan quand même ils comprennent duñu comprendre dara ci débat bi mais on s'écoute voilà maître may ko mu yeggali vers vous, parce qu'il y a Omar Faye qui doit parler, y a Cheikh Omar qui doit parler. S'il vous plaît. Ranérou. département de Ranérou. ah mais may may tamit waaw d'accord département département de Ranérou. mais vous le laissez terminer maître. même si c'est faux déglu ma. même si vous êtes non non non non maître mënuñu nekk fii non c'est pas possible non dañuy dégloonte maître non on s'écoute waaw d'accord bouge-toi les mais il faut ñu déglu on a dit union union citoyenne buntu bi Amadou Diallo qui se retrouve avec pour cent ñu ne Benno Bokk Yaakaar Aliou Demba Sow certainement c'est Dembourou Sow hein 44 virgule 55 pour cent mouvance présidentielle et le dernier c'est la coalition Wallu qui qui qui avec Mansour Diop qui a 0 0 virgule 0 virgule 90 0 virgule 99. c'est faux commune de Ranérou. Ah, union ville nga ville. t'as a la ville. Eh, ban ville. t'as ville nga fi wax. a nga fi wax t'as dit la ville. ville nga Quand on de collectivité locale, non, non, non, non, parle pas le plan administratif, je parle Quand on parle de collectivité territoriale, la commune, la commune, la commune de la ville. a a D'accord. Il n'y a pas de ville là-bas. Alors c'est ça Noumbelan, limo Noumbelan, d'accord. À Dakar, à Dakar, à euh, Non, tout ne se non, non, non. bu dee da nga yóbbu Cap Vert. je ne parle pas de ville en tant qu'entité administrative mais en tant qu'entité territoriale. parce que lay waxee. d'accord mais bu dee Dakar nag nga gis. Ah. Ah dafa am commune. am ville mais bu dee ay Kaolack. conseil départemental. ah mais d'accord. Ah. d'accord ça c'est une collectivité. est dirigée par le maire. merci maître. Omar Faye mais bàyyi sa dëgg mu wax. bàyyi sa dëgg mu wax. de Kaolack. non loolu c'est une c'est mais vous n'allez pas monopoliser également la parole non mais laissez les gens parler également. les les les bàyyi non non euh, avec l'acte 3 euh, avec l'acte 3 Omar mhm. on a cinq villes. xaaral waaw dafa li ma bëgg a wax pour ay xam on a cinq villes Dakar euh, Pikine Géejawaay bàyyi ko ma yeggali soxna si bàyyi ko mu lim rek. Rufisque ak Thiès ak Thiès maintenant maintenant dans l' appellation dans l' appellation. non nag yéen yéen itam na wax. yéen itam déglu wax après ma parce que man li ma leen bëggoon wax rek. <laughs> bi ñu indi acte trois dañoo euh, la région conseil régional léegi on parle de conseil départemental. voilà. par exemple le conseil départemental de Bambey le conseil départemental de Tel léegi mais quand même dans le langage courant. dans l'appellation parce que on dit commune dafay am commune am département on va dire mais ça n'enlève pas la notion de ville de Kaolack. ville de Podor c'est très clair Omar Faye vas-y. mu wane département mu ne ma amul ko amul ville. da ngeen dul dégloon. après parce que par la suite la ñuy wax commune. Omar yow comprendre ñoom ñaar dañu doon werante ville commune maa ngi non dama ne ko dama ne ville maintenant c'est cinq villes. dama ne département mais la commune c'est à ce niveau. on a commune amul ma ne on appelle la ville. mu ne la amul mu ngi mel ne que y a un département. merci. léegi nañu bàyyi Omar Faye c'est lui qui a la parole s'il vous plaît s'il vous plaît.